salaamaaleykum uh, mbooloo mi inaaw bu ñu sant yàlla julli ci yeneen tam bu tedd bi ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp jiital ci nuyoo bi uh, sunu papa Amadou Sall di jaxu uh, toftal ci Samba Ndiaye at Fallou Ba nuyu assistance bi fi des yëpp di nuyu sunu xarit sunu nijaay sunu gan Matar Diouf bi nga xam ni moom moo yor mouvement masse masse mouvement action sociale pour un Sénégal émergence di kenn ci président de la république di promotionnaire di xaritam tay euh, liñu fi dajé je pense que c'est yep a koy wax moy que né amnañu open press buñu wara def at face à face lamb buñu ñu lon directeur général muy lamb bi nga xamné drapeau bi ñu ko toftal drapeau en marche euh, vers 2019, euh, Andak dix-neuf ànd Sall drapeau Siré Thiès Siré Sénégal donc këram sans exception ñëpp dajé mobilisez-vous autour de nous pour nous mener représenter directeur pour une dynamique unitaire bi nga xam le directeur général bëgg autour du président de la république donc lolo tax tey ñëpp gis nañu nous ñu ñëw pour dem parce que comme li en politique euh, ce ne sont pas les paroles ce sont des actes c'est Siré poser des actes

action bu jàppale président de la république bu am doole mouvement de soutien bi nga xam ci Thiès yëpp xam nañ ko Matar nak def témoignage bu rafet ci directeur général ba tay mu tax mu ne day ñëw and ak ñun ci bis bi pour répondre à l'aspiration concrète du président de la république moy limu wax ñu top ci ginnaaw Siré pour liguel ko ndax mom la fi Siré mom nak lañu bayyi ñu jox ko kaddu gi mu ñëw jëf déclaration bi nga xam ne moom lay def jëmale ko askanu Thiès jëmale ko ci directeur général mu def ko. yu ñëpp di nuyu mbooloo mi ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi teew ci jotaay bi di ko rafetlu lool. Euh, kii di Pape nga xam ne moo ubbi waxtaan wi yàlla daf ñu boole démb tey ñëwul muy ku baax ku jox nit cër bu yàlla dogalee tey politique dox ba daje lañu euh, dañ ci bëgg di fàttali ne. Euh, nit ki lu muy def rek na rafetal ëllëg a tax parce que démb bu ñaawaloon xëy na tey lii du mën a xëj suñu diggante di ko félicité ci occasion bi mu am aussi ak organi euh, manifestation bi nga xam ne ñu ngi ci jëm te ñu tuddee ko le euh, honorable député Siré Dia euh, man wax naa ko nee naa ko man dara ñoruma ludul la victoire du président de la république Macky Sall jéego bu ngeen gis ma dox muy ci cees ak ci biti Thiès ci Sénégal àdduna président de la république am victoire moom ma tax a jóg parce que président comme ni nga ko waxee suñu couleur la démb te ñëw muy nit ku baax. donc bu demee ba am ay responsable yu mu teg fi ci cees donc le responsable Siré Dia yaakaar naa bu ñuy joxee cër président war nañu njukkal wala jox cër ki nga xam ne moo ko teewal fii ci cees fi nga xam ne fi la ñuy yëngatu lii mooy logique bi nga xam ne ñun ci la ñuy dox. fas yéene lépp loo xam ne war nañu ko def mu jëm ci loolu denc ci xar suñu tànk tubéy directeur Siré Dia dafa am légitimité populaire fi mu toog nii nekk député à l'Assemblée nationale yaakaar naa ne au niveau de Thiès war na jóg jël soldalam bépp buy responsable ci biir dëkk bi mu dem waxtaan ak moom ñu def benn tànk benn dànk lëkkaloo parce que enjeu yi 2019 yi c'est très important il faut que pas que ñu nax suñu bopp parallèlement comme ni ma amé mouvement ma bëggoon tous les mouvements de soutien yi nek Thiès fasna naa def ay djégo djëm ci ñom ñu def ben structure bo xam day regrouper toutes ces tous ces mouvements au niveau de Thiès ñu bolé suñu doolé xàccandoor dorandor pour mbir mi am njëriñ parce que kenn ku nek bu togué dans son coin résultat bi ñu yaakar fooguma ne dinañu ko am té il est temps que nak ñu ubbi suñu bët parce que législative yi jox nañu leçon yu mag il faut que au niveau de Thiès dans Thiès directeur Siré Dia ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi responsable politique au niveau de Thiès ñu danga koo nekk benn Siré Dia dama bugg compte de sa carrure ak aussi de son envergure mu dox ci loolu seeti tous les autres responsables ñu nekk benn dans Thiès man maa ngi fas yéene jàppale ko ci loolu. lii mooy li nga xam ne bëggoon naa ko ñu profité ci occasion bi nga xam ne bii combat bi may nañu ko ak ñi ngi ko cëralee ñu leen di gërëm di leen sant di leen félicité xamal leen ne Diouf daal. comme nous avons dit, lancement parce que docteur le euh, directeur envoyé une délégation bu am solo un lancement le 25 mai est euh, Daniel Broch Nous allons continuer à ci nous devons continuer à faire di jëf jëm ci élection yi nga mu di ko wax na ñun ñu ngi koy ubbil suñu bunt te ñu ngi ubbi ñu ngi dox ay jéego jëm ci moom lépp loo xam ne lii mën nañ ko seq lu rafetal liggéey bi jëm ci prési victoire président de la république en 2019 ñun duñ ci dellu ginnaaw loolu daal mooy li nga xamoon ne maa ngi koy wax di jërë gërëm gay di gërëm jaxu ak ñëpp ñi nga xam ne Samba Ndiaye moom yàlla moo booleeg moom sama xarit la. nuyu kenn ku si nekk ci turam ak santam euh, di dalal suñu gan gi ñu am muy monsieur Diouf. président wu MAS muy coordonné mouvement boobu nga xamante ne kenn nag tablewul ne ñu ngi liggéeyal président de la république ñu ngi leen di dalal bu baax a baax a baax ah ñuy wax nag ne monsieur Diouf ah tàllal nga loxo wala jëm si nga si ku mat a jëm ndax ñun bu ñu toogoon tey wax envergure bi Siré Dia am muy envergure boo xam ne c'est national ñun buñ ko waxoon mën naa bañ a safe waye ndok yow bang ko ko wu ndok ba nga waxaatee tamit légitimité ndax ken umplé wul né dañ ko fal mu nek honorable député kon ken gënu ko légitime ndok ba nga reconnaître né mom la yalla dogal natt bi mom la dal mu nek kilifay APR Thiès lolé sant nañ la si gërëm nañ la si ndax kat wax sax mbax morom du yàq sa mbaax dara sira nag dynamisme boobu nga wax ci la mus di woote mooy unité ndax moom dem na ba xam ne unité lu mu la mayul leneen mënula koo may soo ko xoolee ci barab ba mu nekk di liggéey avant muy nekk directeur général de la poste ñëpp xamoon nañ ne y avait léthargie totale à la poste Siré Dia bi mu ñëwee ñëpp xam nañ ne climat social bi am poste mus ko fee am loolu yaakaar naa ne ku xam luy unité ku xam luy jàmm ku xam paix nu mu mën a nu mu mën a enrichir dëkk kooku rek moo ko mën kon unité boobu ngay wax moom ci la mus di dox looloo tax lu président yëkkate day xam ne kii moo yor bâton de pèlerin bi da koy jox mbir yi ndax xam na ne Siré bu ko yoree coow du am dara du am te dëppi que Siré tàbbi ci politique mosoo gis ñu génn di ko ŋàññi ci politique mosoo gis ñu génn di wax déedéet looy wax moom la nit ñi gëm moo nekk ci xol yi ndax maa leen di jiite neex na lool waaye yaa ñuy jiite moo dàq Siré nag ñëpp xam nañ ne waa cees ak Sénégal ñoo ne moo ñuy jiite pour falaat la président de la république Macky Sall te benn yéene la am benn bëgg-bëgg la am benn yitte la am. lenn dong moo tax nelaw C'est pour président Macky Sall dès le premier tour waxam ndax day gor gor la da ngay xam ki la lebal nga la lebal dina la tatagal dina la dana yow ba élection yi ñu jëm 2019 victoire président de la république ndax xam vous êtes un homme boo yàgg nga ak président yàlla dogal na am ngay teraanga yéene bi nga yéene président de la république vous avez fait un bon choix li ñu waxoon ne le président a fait un bon choix de de faire Sirédia euh, la tête de liste départementale de Thiès yow it vous avez fait un bon choix wane na ne montre yu baax yépp ñoo bokk heure te incha allah di nga am ndam ci choix bi nga def. mouvement de soutien yàlla moo dogal ñoom ñëpp gis Siré bëgg ko yéene ko amul benn cordinateur wala un président de mouvement de soutien boo xamante ne tey amul yëg-yëg yëg-yëg Siré amuru Siré bëggul sire jiite ko loolu yàllaa ko dogal sire c'est un c'est un fédérateur ñëpp xam nañ ne yàlla bu dogalee diine nekk ci yow ala kulli alin foog nga doon un fédérateur foog nga bëgg jàmm foog ngay génnee di jàppale président si say moyen bopp Siré fa la mënee gars yi ànd naag ñëpp ànd naag responsable yëpp moom ñëpp xam nañ ne amul xaaloo amul xiiroo loolu nag si lañ amoon lu ñu lay wax gën la xamalaat ne def nga choix boo xam ne incha allah la muy wax jomm naa xamanteeg nit ren déwén ñu gisante may sëgg. nee na weesu naa lool ku ma lebal liibar ma fay ko yow tey ji ñëw bi nga ñëw si Siré pour jàppale président de la république Siré jàpp na ne def nga loo xam ne du lu ndaw ci moom te incha allah. naar dong moo jara lebal soow te dinga nga xam ne sirey waaja jërëjëf wasalaam